sama ci kanamam de saa su seen caméra laa ma doon jaar ñoom bu ñu amee loolu waaw alors bu ñu amee baaxul amil sunu lépp moom la te toolu bay kuli na samp goppam ba samp xelam bismina dor nalu na 17 avril sunu جني جني سدما This is

Thank you. moo tax Sëriñ Tuubaa ne sax xiina wulida xayru nabiyin xat bada sallallahu alayhi man hada fu'aaduhu bil hikami waxtu wii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam feeñ ci kaw suuf si moo jur guddi tey gii moo gën a tedd ci guddi yëpp ngir yëpp yàlla ko ji yàlla jëmmi Muhammad rasulullah da koy jëmmal moo tax sintumaane lépp ak cant la nee na guddi gi bu ca yemoon rek ñaari bayit yi njëkk a tudd mooy guddi gi tànnal nañu fukki mbir yoo xam ne mel mbir mu ci nekk jaroon na dëkke baas di def lu mel nii ne man nga ko di ko sant ndax nee na laylatu mawlidi bii mm-hmm. guddi ngën ji mindeef gii laylatu maxwi réew mooy guddi gi yàlla fare sikk ci sunu ñor ci sunu xol bu du woon guddi gi feebaru sikk sàkk ci diggante jaam bi ak boromam du fi jóg mm-hmm. waaye laylatu maxwi taxa bi mm-hmm. nee na mooy guddi gi yàlla fare coona leeru rasulillahi bu wàccutoon ci kaw suuf nit ñi dañuy dund ci coono adduna dund ko alaxira maari day taali waaye war dugudi sitta asumi nee na guddi gii la yàlla fóote bàkkaar yëpp ab jaam boo ma nee tooñ yàlla jéggalu ko mu jéggal ko fa santé yërmande yi guddi gii moo ko waral nee na bihaa ci gii guddi an na jaatu la yàlla wàccee ak mucc mhm. lu waaye am te amoo mucc amagoo dara ak mucc rek mat a ñaan mhm. ñëpp ba ko soxla muy mucc adduna ak mucc alaxira Sëriñ Tuubaa nee na leer gi feeñ ci guddi gi yërmande jooju moo na may mucc mm-hmm. bi xam na jàpp mucc gi xanaa jaloon na ko ndëkk di sant mm-hmm. waaye wal falaax guddi gi moo na may ak texe mm-hmm. bu doon na guddi gi kenn du texe yërmande yi borom guddi gi la yàlla def texe di am maxa suróori Sëriñ Tuubaa nee guddi gi moo fi andi mbégte ndax mbég ku ko amul mënoo sant ndax sant day bég ndax bég day bég te ni muy def ci ab jaam lu dul bég mënu ko hmm. lahumul busra fi l xayaati dunia wa fi l la tabdila li kalimatillahi saalika huwa al fawzul aziim hmm. sëñ Tuubaa nee na wan na jaa hmm. guddi gi moo nu andil pajum aajo pajum aajo nag Sëriñ Saaliwu nee na mooy ngërëmul yàlla ndax ab lu mën a am ci suuf taabugul ngërëmul yàlla aajoom fajuwul ndax biñ ko andee ci kaw suuf yàlla daa bëgg mu dellu siwaat ca moom ndax mooy cosaanam te dara mënu koo delloo lu dul am ngërëmul yàlla mën a dëkkaale boromam guddi gii nag moo tax nga ngërëmul yàlla jàppandi mm. sëñ Tuubaa nee na leer ga suuru lay gii tax moo tax ma ni na najaatu wal falaa maha sururi wal najaa waaye bihaa ci gii guddi arrabaahu la yàlla indee tonawu tonawu mooy bénéfice u képp ko mën a am ngañaay mm. sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa àddina sa digganteeg sa borom guddi gee tax mm. yàlla nee na ku def benn ma fay la juróom-ñeent muy fukk yërmande borom guddi gi moo tax mm-hmm. yàlla nee na seen jëf yi dama leen koy fulal yërmande borom guddi gi moo tax mm-hmm. moo tax mu ni biha rabba waaye wasalaa mm-hmm. Sëriñ Tuubaa nee na guddi gi moo na may ak defaru defaru baax say jikko defaru nga yor melokaan ko defaru loolee bu mënee am caab jaam ne borom guddi gi moo tax waaye defaru dëgg-dëgg xajut caab dina ndax sëriñ bu matub sëriñ ku ko amul mënoo defaru te leer borom guddi gi koo koy sëriñ matub day tudd nu ne di mel nu ne di feeñ fu ne rek waaye kenn kee moo tax ma ni ci guddi guddi wasalaat waaye ma xam defaay mi xami mm. nee na guddi gii la ne yàlla musale ci mbugal bu di woon a guddi gii mbugalum yàlla kenn mënu cee mucc mm. ndax yàlla ko attee ci lu mm. moo mën a musal ab jaam kon guddi gii bu sëñ Tuubaa nee moo mbugalum yàlla ndax guddi gii tax yàlla ci yërmandeem la ñuy atte kon universel mm-hmm. loolu yi sëñ Tuubaa tudd buñ ca yemoon guddi gii wane ne ak cant la mm-hmm. foo waay mën a nekk war nga di baas war nga di berne ci guddi gii di def mboolem loo man ci xeeti jëfi cant ngir sant yàlla xéwal gii munu defal ci gii guddi universel jërëjëf Serigne Saliou universel moo tax bi loolu lépp dajee ci guddi gi sëriñ bi ne kon guddi gi nañ ko màggal daan ne kon taxzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li moxlisi moxazimi képp koo xam ne màggal nga guddi gi te defe ko ni ko borom guddi gi bëggee sëñ Tuubaa nee na bisub xisaab ba ëllëg yomal am yàlla dana la ca musal nee na képp ku ko màggale ni ko yàlla bëggee ak ni ko borom guddi gi bëggee sëñ Tuubaa nee na sa àjjana ëllëg moom leer na waaye daan képp ku ko màggalaat ci ñett yii nag bi ci njëkk mooy nga def ci sa alal ah, def ci sa doole ci lan ci togg ay ñam yu neex te bëri di ko séddale doo ci am xejj ak seen wu ndawal ak ñamu saf suukar sëñ Tuubaa nee na nga boole ko di tagg yonent bi nee na ko ku ko def ku ne màggalee ko noonu nee na da nga ci jëlee xéewal yi may bëgg lim mhm. moo tax mu ne ah, fa kullu man anfaqa fii mhm. mawlidihi musarrafi walaw bi xadri dirhami fa innahu kaman xadar wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayral waral mu fahimi mhm. nee na képp ku def sa dërëm ci guddi gàmmu te mooyale woo ko guddi gi mel nga ni ku fekke woon xare badar xare bu tar boobu tax yàlla naan istastaghishuna rabbakum fastajaba lakum annu anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdafin wa ma jaxalahu llahu ila bushra wa li tatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min hindillah xare bi taxoon yàlla wàcc jibril sëñ Tuubaa nee képp ku dundal guddi gi mel nga ni teewoon nga badar waaye mel nga ni teewoon nga unay te bokkoon nga ci ñi muñ waaye nag nuñ koy dundale mu ne fa kullu man xat xadara mawlida bi sukarin aw la xami nee na da koy dundal ci ñam wu saf suukar ñam woo xam ne ndawal la mooy ni ko soxna yi da saaliwu defee daat ne nag way na laa maayen xur yi mawlida xayril bashari fa shurbu bi mutahari yaqufu kaydal murhimi wa man ala sayyin xara mawlida xayri mawlida sayyidil tabarrukan fa sayyara numu wow bil fadhami daa di wax ne nag ihya u mawlidil yaxmil xiyaali wa duyur fii shifaun li sudur li kulli hërin yantami sëñ Tuubaa nee na bu ñu dee jàng nga defee ko nii ko nii ñu ko defee léegi ginnaaw bernde bi ñamu suukar ak ndawal nee na ñuy jàng di tagg yonente bi salaay salaam ci ay xasiida ñu jël ndox ma teg ko ci digg ba sëñ Tuubaa na ndox moom mi ku ci naan nee na day dundal sa xol da koy tàqalee ki ayib te nee na day tax a dem àjjana nee na dana tax mucc ci seytaane sëñ Tuubaa it nee na gàllaaj bi gën a wóor ci ak njaboot nee na nga bëgg a aar sa njaboot aar sa kër mooy ànd ak sa njaboot di dundal guddi gàmmu moo tax mu ne képp képp ku ko def mooy gàllaaju njaboot bi gën a wóor waaye mooy gàllaaju kër bi gën a wóor mooy ànd ak sa njaboot di dundal guddi gàmmu guddi koo gi nag Serigne Saliou mhm. bi mu waree jullit ñëpp ñun ñu ci dugal mooy ndigalul Serigne Saliou mhm. lu mu jëmale ci sëñ Béthio te bi mu ko digalee itam daa am nu mu ko ko jàngale te mu dëppoog ni ko sëñ Tuubaa waxee waaw jërëjëf universel loolu mooy li nu ci boolee mooy Serigne Béthio moo tax Serigne Béthio moom la ñuy sant sunu cant gépp ci moom lay tàmbalee ci la yem ndax kat ndax kat ñun buñ ci bokkee sëriñ Béthio moo nu ci boole Serigne Béthio nu yóbbaale géew sëriñ Saliou ba mu ko digalee lii moom moo ko jëflante ak moom yëkkati nagam ya yëkkati ataayam ja suukaram sa wargaam ya tàndarmaam ja jox ko kuréelu xasiidaam boobee bàyyi ko woon ndokaa sosuloo ko gàmm ga mu di ko def waaye Serigne Béthio moom mii moo na dimbali ñun ñii tabal nu ci biir màggal gàmm googi màggal ko ak dundal ko bu du woon ak Serigne Béthio duñ xam kan mooy rasulullahi duñ xam leeram gi mooy lan duñ ci bokk dun ko mus duñ ko dund bu du woon ak Serigne Béthio guddi gii ñun ñii duñ tala toog fii di ko dundal duñ xam sax luy loolu ba di ko tal bu di woon ak xasida yi ñu fi jàng kenn du ci mokkal ab bayit ba di ko jàng bu di woon ak Serigne Béthio kaamil yi ñu fi yendoo jàng boobaak léegi kenn du ci mokkal wenn araf ba di ko tal ba di ko bu dee woon ak suñu kenn ku ne xam na ni kenn du ko tal ba di ci bokk ba di ko def kon ñun ñu ci bokkee Serigne Béthio moo ñu ci boole kon cant gi cant gi cant gi ñun Serigne Béthio la ñuy sant kon noo ngi sant sëriñ Béthio mu nu dimbali defal nu tawféex ba tàbbal nu ci biir gàmmoom bii boole nu ci nii mu nu ci boole dimbalee nu ci nii mu ci dimbalee waaye universel mm-hmm. Serigne Béthio ñoo ngi koy sant ci jëmmi Soxna Aida Saliou mii ndax kan kam moom ji la moo xo feeñ na de du ma mujj pusa bi ah, waaw waaw moom moom ko koy jóor waaw rit tax gin la koy koy ci mbax moo tax ko koy jóor noo ngi sant Serigne Béthio gàmm gii ah mu jëwul pusa bi mu réer gàmm gii fii mu yem fii mu agsi fii mu toll Serigne Béthio amul tànk ginnaaw te yam ju ne gàccaal na démbam waaye noo ngi koy sant ci nii mu ko téye andi ko andi ko fii lépp di Serigne Béthio noo ngi sant Serigne Béthio ci nii mu def ma gàmm gi universel duggal ci loolu. jërëjëfati universel Serigne Saliou Samb waaw waaw ndax day gàmm gi dey ni ko boroom guddi gi diglee jàngale ko ni suñ ci tegee suñ tànk Serigne Béthio tax waaye bu ñu demee ba Serigne Béthio xëy na war. Hmm. loolu yi di gën a wéy tey gën a yokk mm. sëñ Béthio da ko jaarale ci jëmmam ju tedd ji muy dëggi dëggi jëmmam ji di soxna ne de Saliou moo tax